bokk yi sëriñ bi mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu délégation officielle bi jóge ci président la république ñëw ci màggal gi di mu di ko ci sant bu baax di ko ci gërëm bu baax ah, ndax ah moo ko bëgg a dégg ndax ndax ni ko ma dikke waxe mel na ci misaal ne protocole yañ daa def yëpp manqué na lan moo ko waral bëgg a teg li ñuy def lépp ci ndigalu sëriñ bi rek ndax sëriñ bi moom mooy lépp lu mu wax noon la lu mu tere kenn du fa jaar loolu mooy sunu doxin mooy doxinam moom mii ci nekk damay wax kàddu yi ci turam dëgg la waroon nañ di def ay lettres yónnee ko comme ni ñu baaxoo def ministre Dame Diop la République ñëpp ñu def leen yónnee leen lettre waaye loolu bi ñu xamee ne nii la demee dañu ko dañu ko dañu ko bañoon def ndax bu ci jotee mën na jàpp ne ah ñii kat ñoom ñi ngi yëgle màggal te màggal xëy na dañu sëriñ bi dafa joxewul ndigal ci màggal joxewul ndigal ñu bàyyi ko. dafa joxe ndigal ñu wàññi ko wàññi jataay yi waaye màggal terewu ko mënu ko tere sëriñ bi ci boppamit it terewul màggal màggal mooy jàng alxuraan mooy jàng xasiida mooy ñaan yàlla mooy jégglu loolu mooy màggal loolu lañ ko defee fii nii ñu ko defee sax mel na ne moo gën a sell ndax kër goo dem ci kër Cheikh Massamba buntu kër Cheikh Massamba da nga fekk tey ñu jàng alxuraan danga fekk ñu jàng xasiida danga fekk ñuy def ay istixfaar da nga fekk ñuy terle loolu mooy bés bi bu fekkoonte ne terewu ko nan ko daa defee dem daaru karim defe ko fa foofu lañ koy defee waaye lam ci bañ mooy mel ci misaal ne a ah, buñ ko defee nit ñi danañ nu fa fekk te buñ na fa fekkee daal mbooloo mu daje. loolu moo tax ñoom ñu ne kilifa yi ci boppam moom sëñ Moustapha ci boppam ne nañ ko defee fii ci dëkk kër gi kenn ku nekk nekk këram bu ko defee dana wóor ne li sëriñ bi digle def nañu ko te li muy tere duñ ca jaar. ci loolu nuy nuyu sëriñ Mountakha moom ci boppam di ko ñaanal fan wu gudd ak wér. di lu taxawaayam ci yoon wi waaye di tax rafet lu taxawaayam ci lislaam ndax moom ko taxawaayam kenn ku ne xamal na ko boppam mooy bëgg sëriñ Touba lool doonub taalibeem jaay njureel gi jëndee ko ak taalibe sëriñ Basiiru mi nga xam ne mooy way juram foofe la nekkoon moom mii foofa la nekk te lépp lu baax lu ñuy def ci yoon wi def na ko te xiir na ci lool fa tabarakallahu loolu doy na ci projet bii mu taxawal mooy projet xam-xam boo xam ne bii wóor na ko ne moo doon bëgg-bëggu seexul xadim ci la doon xëy guddi ci la doon gont juróom-ñaari at yi ci am ci bitti yëpp it jàng ak taalif rekk la fa nekke woon kon nag su ñëwee woote waat woote bu toll nii di liggéey liggéey bu ni toll bëgg na nit ñi xam waaye bëgg na ñu xam kan mooy Serigne Touba itam bëgg na ñu xam ndax xam dafa doon lu war dégg naa ko barki démb ci ñoom ñi ñu di ko wax ndax ku xam ku nekk danga xam fa ngay teg sa tànk te doo juum te la nga def dana tege ci woon ku bëgg a jëf te xamoo nag da ngay jaxase rek kon ñépp dañoo war a xam moo tax sëñ Muntaxa def lii mu def loolu mu defit taalibe ko ci gërëm di ko ci sant ak njabootu Seex Tuuba sëñ Tuuba gépp bàyyiwuñu kenn fa fii ci kër gii nag di kër Seex ma sàmba lii taxawaayu Seex sàmba ci sëriñ tuubaa daanaka ku ne xam na ko léegi nettali nañ ko ba tàyyi bi nga xamee ne sëñ Mor Anta Sali dafa nekk pataar Lat Joor mi nga xam ne moom la àndoon ak moom àndin woowu dama leen koy leeral ba mu leer leen nañ mës la am soxla ci nguur mësu caa bëgg dara mës lekk seen dara lépp lu mu def mu ngi ko def teg ko ci na ko lislaam bëgge rek bañ gu mu bañoon ñuy àtte nit ñi ci lu dul lislaam àtte lislaam moo taxoon mu nangu bu amee lu ñu war a àtte ñu jox ko ko mu àtte ko ci lislaam te lañ ci àtte loolu la ñuy weel loolu bëggoon a aar lislaam moo taxoon mu def ko booba Lat Joor ma nga nekk kër Amadou Yàlla ba mu fa ganee àdduna fekk sëriñ Touba mi ngi Mbàkke gi ñu wax ko ne ko dey soxna Isa de am na gone te ma nga ca pataar mu ne nañ ko bàyyi foofee maay dem fekki ko mu jóg ànd ak sëñ daam Abdourahman ànd ak maam Thierno Birahim ànd ak sëñ Mbacke Boussa ñu ay kàngam yoo xam ne doy nañ sëkk ci yoon wi jóge Mbacke jëm pataar ca dend ak Njaañ ba mu demee ba àgg ci sëñ euh, barabu sëñ Mor Anta Sali ci deq li mu ne mu ne gawar ga taxaw leen ma ñëw dem dugg ci barabu sañ Mor Anta Sali ku ñu wax sañ Yuusu Ndaw bokkoon ci mag ñi ma xam lu baree bari ci moom moo ma nett lii may bëgg a wax ay version de ci am waaye version bii ma am man foofu laa ko jële bi mu ñëwee dugg ci biir gis ab diir bu yàgg doog a dellu siwaat ba mu dellu seen ni leen xam ngeen lu taxoon ma di ko siyaaree dama ko doon laaj ganam gii mu am ku mu koy tudde mu ne ko na ko tudde ma Anta Ceebu Masamba Ceebu maamam la ku ñu xam la ci kokki moo jàngaloon sëñ Mor sëñ Mor Anta Sali ba mu ñëwee mu wax loolu muy kiimaan ñu jàll si ba pataar mu tudde ko Masamba Anta Ceebu dool dool door a delluwaat tellu Mbacke Bawol ba mu demee ba war a dal jàng moo ko dalal jàng bind ca alluwa ja mu nekk bi auzu billaahi mina seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mu jàng ca alluwa joojee ba mokkal alxuraan ba mu doxee ab diir la ko jox sëñ daam Abdourahman ne ko mottaleel ko alxuraanam mottaleel ko ko bañ ca tegee ab diir mu jox ko maam Thierno Birahim ne ko na jàng xeetu xam-xam yëpp ak fànn yépp mu jàng mu jàng ci lu bari mu doo ko jël nag indi ko taf ko ci boppam mu yor ko liggéey bii mu ko yor loon te ku xam ku nekk xam na ne mbindum Sëriñ Tuuba ak xasida yi nga jël ko di ko taalifaat ba mu di ko di ko génnewaat ba mu leer ndax sëriñ bi la muy bind li kiy waxoon léegi am na ko fi wax léegi daf ne or burid la rek biñ ko lëggeeyaatee nag moo tax taalibe bu ne mën cee jariñu mu leeral ko ba ñëpp man ko mën cee jariñu sëriñ Tuubaa la muy bind dara du ci yàqu defaraatu ca dara daf koo leeralaat rek bañ mën koo jàng loolu la sëriñ Masamba saxaw woon féete ko ci sëriñ Tuubaa noonu la doxe léegi nag loolu bu weesoo xam le ma sàmba ñi ci waxtaan bari nañu lool semaine bi rek ñu bari def nañ ci ay waxtaan yu wér yu dëggu kon fa tabaarakallaahu loolu doy na ci ba ñu demaat ci leneen sëriñ sàmba nag ak sëriñ Touba moom dañuy ñaar ñoo xam ne mënuñoo tàqalikoo lool mënuñoo tàqalikoo benn yoon ba yàlla dogal mu jógee fi lam ko daaloon ak lam ko digaloon lépp ca la nekkoon ba léegi njabootam jii mu fi bàyyi itam tàmbalee ko sëriñ moo du May ba sëriñ Abdou Xabiir sëriñ Moustapha mii tey di xalifaam nekk ci kaw suuf wutu ko fi te ma teg ko sëkk ñoom it ku ci ne sa tànk fam ko tegoon képp nga ko teg soppi woo ca dara yokkoo ca dara wàññiwoo ca dara boo dee yokku jëm ci lu baax sax def nañ ko waaye nag soppi moom fiñ ko mu doon koo xam ne pas-pasam ak bëgg-bëggam ak yitteem ak gëmam sëriñ Touba wér na lool gëmam Seex Masamba itam wér na lool muy sëñ Moustapha sàmba mi njaboot gépp mu mën leen taxawu mën leen toppatoo warmaal leen bëgg leen noonu mooy ni muy doxee ak njaboot fa tabaarakallaahu yàlla na fi yàgg lool te wér sëriñ Mamor di jawrinam topp ci moom sëriñ Abdul ñoom ñoo fi nekk njaboot sëriñ Touba Seex Masamba bu loolu wéyee ma di leen xamal ne ah am nanu day kilifa goo xam ne yombul kilifa goo xam ne day def defaale taalibe defaale ay doomam defaale ay rakkam moom mi rek a ko man keneen mënu te li ma wax xam nañu ko bu baax a baax fa tabaarakallaahu kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla guddal fanam te wéral ko te kàttanal ko gannaaw bu loolu wéyee ñuy sant président de la république ci taxawaayam ci am yëgam ci bëgg kilifa yi ci am pas-pas ci ñoom dañ ko ci sant bu baax ndax lii mu def pas-pas rek xam ne lii lu mu daa def la lu mu daa taxawe la xam na bis bi xam na ne fonk ndigal la tax defuñu ko nañ ko daa defee mu ne daam Diop kaay leen demal ma ca te bu ngeen demee ngeen soñ santal ma leen gërëmal ma leen loolu yëg la yitte la mën nañ ci jële lu baree bari mën nañ ciy jëlee njàngat lu baree bari fa tabaarakallaahu yal yàlla dimbale ko yàlla tawféexal ko te defal ko xeewal ba li mu yéene ci réew mi mu mën koo def ba mu mat sëkk te bañ a benn gàllankoor ah, gannaaw bu loolu wéyee nag noonu dun man lu dul sant leen gërëm leen ndax ku jël sa kilifa def ko noonu il faut nga sant ki ko def te muy ki jiite réew mi yëpp kon ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax di sant ñii mu yabal si muy Daam Jóob ministre bi nga xam ne mooy enseignement professionnel nga xam ne jamono ji moom ku am liggéey la moom ndax ku bëgg a former xale yi bëgg leen a jàngal profession ba ñu am métier dootoo noppal kon sëñ daam yàlla na la yàlla dimbale na la yàlla defal tawfiq bi nga ñëwee Jurbel nekk fi ak léegi li nga fi def ci Jurbel gis nañ ko bu baax sa taxawaay ci Jurbel xam nañ ko pusa la doon boo xam day boole ñëpp di ñaw loolu mooy li am solo yàlla la yàlla defal tawfiq ba nga am ndam ci liggéey boobu ngay def ah gouverneur bi xaaka saa niki noonu Cheikh Mbacke Sakho moom it lépp la ci kër gi fu mu dem ñëpp ay nijaayam lañ nun ñëpp ay doomi nijaayam lañ kon fa tabaarakallaahu moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax Talla la meeru Thiès la Touba Mbella gële ma dëkk fa la ay bokkam yépp ku nekk njabootam fa la ñu nekk kii mooy àndal di safooram foofee la juddoo fa la yaroo sëriñ Ahmadou Mbacke lañ ko tudde kon fa tabaarakallaahu moom cër bi mu am ci noonu dafa doy sëkk te du fa gëj loolu mooy li ma bëggoon a wax leneen li ci des mooy sëñ ma dikkee ñang ku am pas-pas la ku bëgg seex ma sàmb la way juram ma dem ñang ca mag ña la bokkoon àndoon ak sëriñ Tuubaa seex ma sàmb di ku ñu ràññee lool dama dama dama déggoon ku wax ne lim ay nit ba noppi ne ma dikkee nag moo ci boole boppam dafa xamul dafa xamul daa xamul bu xamoon du waxee noonu ma dem ba ñanga ko ci boole ndax ni mu toll woon ci ma Massamba ak li mu lëggee ci kër seex ma Massamba ak ni mu toll woon ci sëriñ Touba ay maamam sëñ Madu bëggee ñëpp di ay maamam moom mi kon li ko boole ci du du moo ci boole boppam pas-pasam de yokk na ko waaye la ko ci boole nag leneen la moom fa tabaarakallaahu waaw loolu ay la yu may tontu ndax daf ma xaw a metti lool ma dikkee ci boole boppam mënul nekk ma dikkee boolewu ci boppam pas-pasam nag yokk na ci lu bari waaye ay kilifa mu am li ci ma am kooku mooy ma Madické Niang mi ñu ngi koy sant bu baax lu mu gis mu yittey kër gi mooy yitteem amul jeneen soxla sub loolu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di sàkku itam ci sëriñ bi mu ñaanal njaboot gépp mu ñaanal président de la république laay wax ñaanal njaboot gépp ba li nga xam ne yéene nañ ko ci réew mi ñu mën ko am muy ak dal ak sago ak jub ak nanguwal liggéey ak def li war a def lii sëriñ baa ngi ñaan yàlla na ko suñu borom def ci réew mi yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen balu ak itam nag yi e, jataay yu yàgg yi ndax loolu doxin wee woote mënul ñàkk e, xëy na am na yu jot am na yëpp waaye yëpp mënu leen koo def ndax xat gi kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant